jërëjëf mbokk yi saxoo di ñu bàyyi xel di ñu suivre ci seen histoire ñu ñëw nag faskee ni ànd ak ci ñaareelu pàcc wu histoire un fardeau jusqu'au di ñaareeli poñ bi ci diggante Awa ak papa ci diggante tante Ramatoulaye ak sëtam bi di sofi waaye ci diggante Adja di yaay Awa mi faski ñëw ci dëkk bi ak njabootu Awa gi nga xamante ni ñu ngi nekk Dakar te xamuñu kan mooy seen mag mi di Sophie balaa ñuy sori yow mi abonné te di doon gan ci page bi ñu lay ñaan ngi abonné laay partager boo mënee def commentaire suggestion wala critique def ko yow mi nga xamante ne kër gi sa kër la ñu lay ñaan nga laay bind say commentaire gannaaw at bi weesu Sophie nag bi mu tàmbalee dem ci daara ju kawe ji dafa utaloon boppam neneen nuñ koy woowee muy fiyaa bi nga xamante ne nag léegi jàpp na ne comme am na fukki at ak juróom-ñaar moom doonatul xale mag la ba léegi buy dem jàngi dafay toiletu defaru comme ni ko xale yi yu jigéen yi tooy ni moom di ko faral di defee altine ci juróom benn waxtu ci ngoon fekk papa di doo ko waaj ci liggéeyam mu bokk ak yoon ki nga xamante ne mooy Fia moom it muy jóge ci daara ji di wàcc ci noonu bi ñuy gis seeni bët tase papa xool ko xool bi nga xamante ne mel ni ku ko xam mu yàgg waaye mu mel ni ku ko gisul pour rek baña waxtaan papa melni ku xawa jaxaso melni gis bimko ko gisoon ci fan yi ñu wessu lolu jaxase na xelam lool sorol nako ba tay bim ko mu melni ku ko xawa ragal nangul sax di xol ko lu waxu ay tànk yu be ci di way ñu melni altine dafa jotaat ni altine bayon papa bi mu wàccee jaaraat même yoon bi mu ngir am yaakar gisex ki nga xamantene moy sophie sofi te faskene tay tey waxtaan ak ndekete yo bes bobu loolu mujjeewul am ndax Sophie teel a ba tax ñëw bokkuñu ay waxtu papa loolu xaw ko jaxase bi mu yeggee kër ga daanaka ni mu doon kafe fo ak njabootam coppite ko commencé ko am fu mu toll di yuuxu di saaga di gëdd yi nga xamante ni ñooy xale yi muy coppitiku bu gaaw bi nga xamante ne awa jaaxle lool ba koy laaj waa yow lu xew ba nga dikkee ñu nii tey ah fan yii de am na lu ko bu bees boo indi ci kër gi te bii amoo ko woon ba sax say dëkkandoo dañu may sax laaj lan moo dal sa jëkkër ji lan moo ko mett ndax ni mu mel léegi ba noonu papa mer ci wax ji ba gedd li nga xamante ne mooy reer ba sax yëkkati kàddu yoo xamante ne wax na ko awa bëggatuma la gis ci kër gi soxna si ne ko boo ma waxee rek ma dem suñu kër duma si teg baat tontu bi ko awa tontu xaw ko jaaxal ndax awa mosu koo tontu mësul wax awa wax ba wax ko baat yi nu mel loolu xaw ko jaxase mu toogaat tuuti jël temps jamono ji nu mel boo meree fekkoon nga toog tëddal bu fekkoon nga taxaw toogal bu fekkoon nga tëdd nag jugal dem doxantu mu mel ni bañ a def njuumte waral papa génn kër gi ndax bañ a def loo xamante ne dina ko réccu ndax mer rekk moo koy tax a def mu génn kër gi dem doxantu mel nii li yàlla di def mel nii dañu jëlaat sofi teg ko ci yoonu papa bi mu génnee mu gis benn jëmm ju taaru lool waaye am ay nuraale ak jëmmu sofi sofi bi nga xamante ne fan yii yëpp moo traîné nelaw ki nga xamante ne mooy papa solal ko lool ci ay xalaatam ba nekkatul ci biir kër gi ci jàmm ndekete sofi ci restaurant boobu la duggoon doon fa jël reer bu mu commandé woon pizza ñëwoon doon ko jël si papa bëggul woon jënd pizza waaye comme gis na fa sofi mu ñëw profito nuyu ko waxtaan ak moom bi papa nuyoo sofi ne ko waleykum salaam kilifa gi ci yar teggin ndax ba tey mu ngi gis ne kii mag la war na ko jox cër respecté ko ci noonu ci la ko papa di tooñ mu da kan ah dafa mel ni de kii ci njabootu bëgg pizza si la bokk baadu yow si ñooñu nga bokk dang may nuru ko bëgg lekk de nek ah Lidi, de pizza bi dafa melni mo dak ci dekk bi de mi da nga mën togn rek way man nekkuma ko bëgg lek de ah papa ne ko baadu kon man nga bëgg wax dama bëgg lek su fi nek dedet duma wax lu ni mel parce que yaw sama moroomu papa nga kon sañu maax loolu papa ne ko a yaw sa papa ñaata at la am mu ne ko nga bal ma bëgguma wax sama waxi papa situ jamono ji papa ne ko wax ma rek bu fekke da nga bëgg ñu waxtaan ci ma so fi ne ko waye yaw man xawma la ba ci waxtaan ak yow mu ne ko loo gis am na bés bu njëkk te tey dafa mel ni mooy bés bu njëkk ci max yow ñu xamante nga wax ma say soxla ma taxaw pour faj ko soo fi ne ko beneen yoon du ñàkk ñu tase fi ñu am temps pour waxtaan ci ci noonu lañ continuer waxtaan kaf fooree ba papa mujjee jël numéroom soo fi jël commandam dellu seen kër papa fas keenewul woon jënd pizza waaye mujjee na jënd pizza ba yóbbu ko bi mu demee këram nag mu yëkkati jël na pizza bi mu jëndoon jox ko ki nga xamante ne mooy awa soxnaam di jéggalu ci li nga xamante ne moo fi jote weesu sànq ba tax muy génne soxna si ne ko nii la àdduna lii mënu si ñàkk sëy du ñàkk ay tolof tolof waaye li si am solo mooy waxtaan ngir réeroo bañ a am ci noonu ci la ko awa yi ni ko manit maa ngi lay jéggalu ndax war woon waxee ak yow nii ndax yow yaay sama kilifa yaay sama borom kër maa ngi lay jéggalu di la jéggalu tamit ci turu xale yi nga xamante ne ñoom lañ bokk jur te ñoom ni ñu mel ak yow rek moo tax ñu doon kafax yow di fo ak ree waaye yaay suñu kilifa ñu ñëpp war woon sax mer ah ci lañ waxtaanee nag juboo nag pizza bi mujjee doon reer bi nga xamante ne kër gi yëpp reer nañ ci ba suur mel nii suur bi nekkoon ci biiru papa daa mujje réer ba mu xiif gëg ko dikkal ba dara desul ci li nga xamante ne moo di pizza bi ki nga xamante ne nag mooy aji di yaayi awo moom mi nga xamante ne mësul gis papa di jëkkuru doomam am tey yoon pour mën ko gis ndax tàntuk awa di ramatulaay fi nga xamante ne foofu la Sophie dafa feebar ci feebar bu yàgg bi nga xamante ne am na ko bañ teeku hôpital te sofi moom rek moo nekk ci kër gi di waajal examen nekkam ci kër gi day xaw a metti te du mën a toppatoo ki nga xamante ne mooy tàntam ba pare bëgg a toppatoo li nga xamante ne mooy jàngam jot na yaayu awa di aji ñëw fi nga xamante ne mooy dakaar pour mën a toppatoo rakkam ku ne xam ne jóge Tamba ñëw Dakar yoon bu metti la mën nañ ne sax comme guerre waaye guerre bi nag aji faskee nag na ko gañe ñëw Dakar mën a toppatoo ki nga xamante ne mooy rakkam toppatoo sëtam waaye gisaale doomam ak boroom këram ak yeneen sët yi nga xamante ne jotagu leen a xam ay fan romb na waaye wérgu yaramu tutaaramutulaay dellu ginnaaw ba mujjee sax noppalaku yóbbaale ay secret yoo xamante ne waroon na ko wax sëram di yaayu aji di maamu sofi kon tegaatal fii sa baaraam dina ñëwaat ak yow ci benn épisode bi di la ñaan bul fàtte abonné boo ko defagul partagel laagal ñu ngi xaar say commentaire suggestion suivral waxtaan bi ndax li si des moo ëpp li rombagum jërë ngeen jëf na ne yàlla jeexul na ne yàlla jeexul métti métti comme le nez à